quatrième numéro émission bi ñu tuddee jotaayu làmb d'habitude nag jotaayu làmb deux invités la doon am mais par contrainte moo tax ñu am benn invité rek tey nag ñu euh, am mbégte dalal euh, Malick Gningue Malick Gningue moom mooy président de l'association des responsables des écuries écoles de lutte du Sénégal ARELS moom mooy également président euh, écurie bi di xam sa cosaan président Malick maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu internet bu TV. waaw Assane ñoo ngi lay ñoo ngi lay fay ñu di aussi le directeur vraiment de Leewtoo di am mbégte mbégte ak contentement ñëw vraiment euh, waxtaan ak yow ci biir làmb jërëjëf président ñu war a waxtaanee ci actualité làmb ci huis clos bi wax ci affaire alerte AREELS wax également ci xam sa cosaan mais damay démarrer rek temps yi def na benn sortie si suñu làmb exiger que dem saison bi démarrer le 14 pourquoi nga choisir le 14 comme date. waaw parce que euh, man yaakaaroon naa ne sincèrement le 5 de ce de ce mois. lamb ji dañoo ubbi. fi ma ko tegoon moom mooy que ñun waa ARELS. association des responsables des écoles et groupes mhm. de ne ubbi nañu uh, saison bi. Mhm. ñu gis ne bi mu ubbee. dafa mhm. am lu nga xamante ni lii moom mooy suñu warugar ñun en tant que association. ñu woo ñu bokk ci biir euh, association bi yëpp ne leen dem leen ngeen affilié ci bu fekkente ni bi euh, école tactique yi dem nañu ba affilié ñun suñuy mbër ci des pour ñu jëndal leen licence donc bu amee lenn lu nga xamante ni bi dafa manqué pour saison bi ci gouvernement bi rek la mën a jógee d' accord kon léegi da ngay wax ne école écurie de lutte yëpp ak école yi def nañ affiliation ba pare. def nañ seen waruwaay nañu waroon a def yëpp def na fi ñu toll nii kay moom mhm. man dootuma waxati sax le le ministre mais c' le président de la république Macky Sall. Mhm. moom moo ci des nag pour ubbil ñu làmb gi ni muy ubbee football bi. Mhm. ubbee ko basket bi. ubbee ko. Euh, euh, course bi. ak yeneen yeneen yeneen discipline yi. man je crois que amatuñu ñoom pour. wax ne que dañuy xaar dans la mesure où bu fekkente ni bii pour respect le respect des mesures de des mesures lu luñ ñu wax d'accord rek on est même prêt à les accompagner dans le dans ce cadre ce qui veut ñoom li ñu wax a def moom mooy fexe nu nga xamante ni nii véritablement nag dinañu kii sunu sunu làmb ji. Euh, président Birasène euh, Matar Ba woolu woon na ko pour mu déposer benn protocole sanitaire. depuis la carte su ma juumoon déposé na ko bépp loolu lan ngeen xaar pour demander pour yow. ma moom laa lay wax asal depuis la carte kay ñoom déposé li mu li ñu laaj yëpp joxe nañ ko CNG def na la mu war a def. Hmm. ñun def nañ la ñu war a def. yaakaar naa ne ministre bi teg na ko ci euh, ci table président de la république. Hmm. li ñuy ñaan président de la république Macky Sall. et solennellement moom mooy nañu ubbi làmb ji. lépp lu mu joxe nag comme condition. Hmm. nañ ñu woo ñun association école ak écurie de yi ñu fexe naka moom la def ba accompagner leen ba mu wóor leen leen du mu am benn gàllankoor ci liggéey bi ñu war a def. ñun d' accord nañ ci loolu suñuy mbëri itam ñun ñoo leen ñoo leen ñun ñoo leen di ñun ñooy seen i seen seen i loolu seen responsable mais ñoo leen di teg ci yoon. protocole boobu yow lan lan nga yaakaar ne moom moo ci nekk. loo xam ne mën a yéexal mbir mi. protocole bi li ci nekk moom mooy ñoom li ñu bëgg ñoom waxuma man waxuma bu mu lan lépp lu ñu soxla hmm. état bi lépp lu mu soxla huit clos bu fa bu newoon benn mbër sax moo fay dugg mm. ñu jël benn mbër boobu mu dugg fa bu fekkente ni bi dafa am lu ñuy kii pour kër mbër yi mu am fa ay ay problème aussi mm. ñun mën nañoo waxtaan ak mbër yi ba nga xamante ni bi à un jour ou deux jours mm. des combats nous avons des propositions yu nga xamante ni mën nañ ko defal état bi ba nga xamante ni bi buntu këru kenn du am benn nit ku ci nekk sa biir kër ngay toog seetaan yan propos position ngeen indi ba kër mbër yi kenn du am kenn du fa nit du fa ñëw nan la ubbi na làmb ji buñ ko ubbee ñu wax leen fan la ñuy jaar ak mbër yi dañoo sonn man nii kenn gënuma am sonn démb moom xaw ma kan mais démb sax moom dama doon déliré parce que quand j'ai une émission de buy génn les les mardis ma gis les Eumeu Sène gis Gris Bordeaux gis ainsi de suite mais loolu ñun wax ak lu làmb dañu namm làmb Sénégal dañu namm làmb fu ma tourné ci seen fu ma tourné ci dëkk bi ñu may laal kenn ngeen di ubbi ñu ubbi nag waaye làmb ji waaye jot na nag. d' accord est ce que waa ARS pare nañ pour euh, huis clos bi ñu àndal ci état bi def def lu combat ci huis clos. dégguloo li ma la wax ñun waa ARS pare nañu pour que état bi na mu bëggee làmb ji tëddee. ah mm-hmm. d' accord ba benn coow du am kenn du am benn problème rassemblement yi ñuy wax ak tout ça du am ñun waa ARS ñun pare nañ pour accompagner ci. l'État pare nañ pour accompagner ci le CNG. huis clos total ngeen di xaar wala huis clos partiel. huis clos total huis clos partiel xam nga lan la ñu bëgg Assane fi ñu toll la mm-hmm. làmb ji ubbi. ñun daal man loolu lu ñu mën a wax. lu dul sama waayew xale yi nan tooyal seen seen seen seen kii bi moom na lu gisuñu leneen. nan mu ubbi làmb ji. d'accord léegi ñu wax ci ci AREELS AREELS yow yaa ko jiite def ngeen taayale benn conférence de presse lan moo sababoon conférence de presse boobu. waaw xam nga les sax am nañu wax ne conférence de presse boobu dañu bàyyi ba yenn nit ñi def ñu non non non c'était pas ça c'est que ñun tey lan nga mën a def ci làmb te jaaruloo ci école ou école de lutte mënul nekk c'est pas possible mais ñu woo ay nit fàtte ñu ah, mais nag saa waay euh, ñun du mu ñu ci nekk xajuñu ci pantere ku ñu woo bu bu ñu woowoon mm-hmm. wax ak ñun bi ñuy woo ñépp te ñu yilif mbër yi yilif écurie yi di habilité euh, ñi nga xamante ni ñi ñoom lañu war a habilité lépp ci biir làmb ñuy woote te woowuñu boobaa dañ naan dañ ñoo xeet looloo waraloon suñu woote boobu ba après nag euh, erreur bi amoon wax fa dëgganteeg yàlla waa ministère dem nañ ba gis ne ñoom li ñu waroon a def moom mooy wax fa dëgganteeg yàlla bu ñuy waxtaan waxtaanu làmb ñu wooñu ci j'espère que loolu dootul amati bi loolu weesoo aussi jour bi nga xamante ni bii woote nañu euh, dem nañ affilié bi parce que ñun benn bis moom la ñu jàpp ñu ne képp ku bokk AREELS képp ku nga xamante ni kii aussi école nga ak écurie de lutte demal nan dem ñu affilié ci mais nit ñi dem affilié ji bi ñu affilié ba pare nag il fallait faire une déclaration pour montrer au CNG à l'état du Sénégal que kat xaw ma kan moo parewul waaye mbër yi pare nañu écurie yi pare nañu manager yi pare nañu entraîneur yi pare nañu li ci des daal moom mooy le président de la république euh, Macky Sall son excellence Macky Sall ubbil làmb ji. ok léegi ba ngeen defee kii boobu am na benn euh, kàddu bu fa jógee mooy que ne def benn programme wala benn programme comme xam ni écurie ak responsable écurie ak école de dañ ciy tënku di ko dóorandoo di ko doxaloo loolu ban ban genre programme la. waaw xam nga euh, loolu c'est-à-dire association la hmm. association su ñu ko waxee normalement benn benn règlement intérieur mën na leen tënk règlement intérieur boobu bi nu waxtaan waxtaanee ñépp maanaam waxtaan ak entraîneur yi waaw waxtaan sax mais di leen tëgg di déglu aussi les managers di déglu lutteurs yi hmm. daanu ne li des moom mooy il faut que ñu am benn règlement intérieur standard hmm. bu nga xamante ni bii képp ku nekk ci biir làmb ji di ci yëngu te sa dara nekk ca muy plaisir bi nga ciy am muy alal jang cay am muy bànneex bi nga ciy am normalement war nañ dëkkandoo àndandoo pour que au moins benn règlement intérieur bi mën ko teg règlement intérieur boobu mhm. je crois que ça mais je peux dire que suñ ko appliqué mhm. ah lu bi yëpp ñoom ñoo ciy gis seen bopp lan moo war nekk ci règlement intérieur boo xam ne ni mën na soppi doxalinu làmb xam nga dañu war a dem vers une Et qui dit fédération parle de regroupement de d'association d'identité d'association et autres mais mënuñu cay dem te nit ñi duñu bokk li ñuy xalaate ni ñuy joxe ni ñuy gisee mm-hmm. moo tax waxtaan nañ ci je peux suñu biir panel bi ku nekk di génne sa xalaat léeg-léeg ñu dem rencontré ji les les su suñu mbokk manager yi rencontré aussi promoteurs yi waxtaan ak ñoom mais alhamdulilah je crois que bis bu làmb ji ubbee ba nga xamante ni bii vraiment accordé nañu suñuy violon ñun ñooñu ñëpp di ngeen gis ne beneen xaar tamit moom làmb lay ñëw taxawaat parce que Assane dama lay wax benn mbir da gis benn nit bu jël benn xale commencé moom ci presque je peux dire montant bu taw dem ba nga xamante ni bii xale boobu école na maanaam bu jël da ca kaw pratiquement ñooñu ko yore woon démb ak bërki démb dootu leen amalati benn njariñ ba am leen war a amal léegi nag ci biir kii boobu nu ko koy wax te règlement intérieur boobu dafay tënk euh, képp ku nekk ci axlu làmb ba nga xamante ni bii ku ci nekk ëllëg la nga ca waroon a am man mi nga xamante ni bii li ma ci am moom mooy xale bi dem bëre ji daan ma kontaan ci mais war naa mën a aussi xale bu dem bëre daanu aussi ma kontaan ci parce que day fekk ña ma ko seqal mhm. maanaam ñuy association école ak écurie de lutte mhm. gis-gis bi ñuy am léegi ci làmb mhm. moom mooy doon euh, bu sama mbër daanee dama ko war a accepter avec fierté savouré ko mais su daanoo aussi dama accepté ko aussi avec fierté xam ne tey kat yàllaay maye te comme mënut a may ñëpp benn nit la mën a may mais ku ci am rek ñu ñu yéene ko ko kontaan ci. d' wax nga règlement intérieur euh, pratiquement équipe yëpp bu ñu juddu dañuy teg seen règlement intérieur mais seen problème mooy que ñu appliqué ko lan ngeen di imposer wala lan ngeen teg loo xam ne nii di ngeen permettre wala da ngeen obliger wala da ngeen exiger mbëri ñu rek respecté règlement intérieur boobu. xam nga bu fédération amoon. boo demee nga baal ma dans le nawetaan mhm. mais il y a des règlements intérieurs pour chaque entité mhm. mais au moins il y a aussi benn règlement intérieur ou ak ay statut yu nga xamante ni day nekk ca kaw mhm. dafay tënk yëpp tey jii naka nga mën a jële par exemple benn mbër nga jële ko pratiquement mu nekk gone dem dem dem dem dem dem dem il respectait tout ce qui était écrit ñu dem ba nga xamante ni bii tey moom toll na fenn fi kan moo ko fa yóbbu écurie mu xëy suba teel na damay dem boo bindul tënk ëllëg buy dem amul dara lu koy lu koy empêché mu dem mais gis nañ ne nous voulons or nous organiser ba nga xamante ni bii dañuy def ay écurie ak école de lutte yu parce que dama koy wax sama gars yi dama naan leen làmb li mu mën a indi du ay millions ay milliards tant que écurie yi nag yegguñu ci ay millions mm. ça veut dire que sunu euh, vocation am na lu des suñuy objectif atteindre wuñ ko. te loolu da ko war a atteindre. mais est ce que prévoir ay sanctions comme mbër bu ko respecté wul ngeen mën ko daal. ah bien sûr parce que nag euh, waxante dëgg euh, ki nga xamante ni kii tey jii mën koo mënut a respecté les les les les règlement. Mm-hmm. bu fekkente ni bii par exemple yow président la man président la mm-hmm. ñu bokk dans une association. yow nga bëgg a jàdd yoon wala sa bër bëgg a jàdd yoon nga bëgg cee ànd ak moom su fekkente ni bii on est dans la même association mais yow ci sa bopp yow yaay njëkk a am lu nga xamante ni lii day tegu sa kaw en tant que kii et sax da nga ko du nangu parce que àndu gor ak gor lay doon su boobaa demee ba ku daal mhm. gars yi dañ lay xam sa cosaan xam na ban heure lan daan commencé mhm. quatre heures et demie cinq heures pile maa ngi ci bunt bi ku ñëwul cinq heures doo entraîné loolu je suis je suis catégorique. ñoom soq ak. Euh, non ñoom soq ñoom ki ay rakku Onde de Fou lañu. d'accord Onde man maa wax ne tant que mi ngi ci écurie bi. et puis mi ngi mm. moom mooy doon tête de filu écurie bi. loolu leer euh, soq moom mi ngi fi. Mm. je crois il est présentement ni sax. engrais xaw a kii mais yaa rakk yi. jet li mag gi du moins jet li moom ma nga Amérique. léegi yaa naaru sogaas aussi qui est là. mais entraîné wu ban waxantee dëgg rek li xew ci yeneen écrits yëpp ñun sax ñoo ci xaw a tane parce que lan mooy sa responsabilité ci loolu le fekk entre entraîné wu. li ma waroon a def defuma ko. parce que xale yi jox nañ ma jël. Mhm. xale yi respecté nañ ma. Mhm. xale yi xam na ne man su ma xasee ba ñëw li ma bëgg par force danañ ko def. d'accord mais nag Assane. Mhm. j'ai pas que la lutte. c'est vrai j'ai ma famille. d'accord arrivé nañ ci cappaandaw li sa dernier mot. sama dernier mot moom mooy di am mbégte ah ci. liggéey bi nga xamante ni bi véritablement yéen a ngi koy def di wax ne rek euh, euh, jël leen yéen it les journalistes la mm-hmm. beneen façon mm-hmm. bu bokkut ak bi ngeen doon doxalee démb ak bërki démb ci làmb bi ci la bokk bii moom ci la bokk <laughs> bii moom je vois que ci la bokk mais dañ ko ngir yàlla war a suuli woo leen bëri parce que je vais vous dire une chose mën nañu ñëw nii wax ci yenn affaires yi mm-hmm. mais c'est des gens qui sont très intelligents d'accord di leen gërëm di leen sant ah, di gërëm waa Leewtoo yëpp ak téléspectateurs yi di gërëm directeur bi di gërëm aussi say techniciens. vraiment je trouve en en Leewtoo un cadre. qui demain pourra permettre à la lutte de persévérer d'aller vers de l'avant merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup merci président loolu moo doon seen quatrième numéro jotaayu lamb ñu ngi leen di remercier di leen jox di dig daje jeudi prochain incha allah jërë ngeen jëf.